asalaamaaleykum mbokk yi teel a alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci dul xijja muy weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa juróom benn fan ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñett fukki fan juróom-ñaar bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na li ñu ci gën a taamu moom alxames mooy ku ca daloo alxames bi nekk sunna la ci ku mu woor ko bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci fitnay àddina maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbugalum bàmmeel allahuma inni audu bika min fitnati dunya wa audu bika min adabi alqabr allahuma inni audu bika min fitnati dunya wa audu bika min adabi alqabr xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na bu doon ne doomu aadama dafa yor aw xuru wurus kon du ko tee bëgg mu doon ñaari xur dara feesul gémmiñam moom doomu aadama lu dul suuf sunu boroom képp ku tuub dellu ci moom dana la jéggal xadis bi Buxaari nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law anna libna aadama waadiyan min dahabin ahaba an yakuna lahu waadiyan walan yamla faahu ila turaab wa yatuubu allahu ala man taab rawaahu Buxaari waxtu julli yi suba waxtaan dana tàbbi cinq heures trente et un juróomi waxtu yi tegal fanweeri simili ak benn tisba treize heures trente neuf benn waxtu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent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 diso 19 heures 36 juróom-ñaari waxtu yi tegal fanweeri simili ak juróom benn yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin